mbokk rax ci yéen sàngoo derube Naby Vision ndeysaan wax ju am solo mais waa Pastef yi comme amuñoon information bi ñu foog ne ay Akhenaton lay wax Ousmane Sonko dina toog naan ay moytu leen Akhenaton ak moytu leen maa ngi gis ku ne na non nee nañu moytu Akhenaton nee nañu moytu Mame Sène nee nañu moytu Jiji ma ne ma neen ñi xamuñu lu <laughs> nekk ci kaso ba amul lu wax naan day yónnee ay yóbbante pour ay ñoom Akhenaton ak yooyu non non Ousmane Sonko ne laa jamais fait xeexam romb na foofu mais ñi nga xam ne xamuñu na foog ni ay Akhenaton lay wax ay jiji ay kenn xamul man <laughs> ma fekk na yooyu waa ji la ñu wax ba mu waxee live bi vraiment muy live buy yëngatu sax ñi xamul tamit bon def ci ay commentaire ñi naan noom moo laa day jaxase moo laa day nangam te xamuñu information ca biir kër Sonko laa ko jëlee donc coow loolu na kur mais ki doon waxal muy Déthié Fall ki ma doon waxal muy Déthié Fall guddi googu nalawul nak ma expliquer leen nu ñu ma expliqué leen saboté liste Ousmane Sonko bi Ousmane Sonko nekkoon jité ko pour don député c'est liste nationale bi nu ñu ko saboté nabi Vision. fekk Ousmane def na ci live bu yag expliquer né histoire bi ba goudi gi mi ngi wo Déthié nako ko Déthié affaire bi def def def ko gor jigen gor jigen jigéen ko Déthié nako ko touti ma ko ba minuit ñu ne tëj nañ <laughs> loolu lépp Ousmane xamoon na te defoon na ci live wax na ci conférence la ci def conférence boobu dëcc ñëw ca ne wër daw ñooy bi wax Barthélemy Dias Khalifa euh, Pala mi nga xam ne dee na et cetera cooli na kur donc Ousmane léegi dëcc dëcc da daa dem seeti Ousmane Sonko quoi <laughs> génn naan gis naa ko am nu muy def laxi gis naa ko il se porte bien ah, ma génn ne day fen de gisu ko de day fen gisu ko te wallahi gisu ko <laughs> dafa ñëw bind turam xam nga foofu benn prisonnier doo ko gisal nit te te bëgg ko gis Ahmed Khalifa Niass yàgg na ñëw pour seet Sidi Lamine Sidi Lamine Niass rejeté ko gisu ko bala boo ñëwee di seet si ni dañuy dem ne telle personne indi la liste bi ne ñii ñoo la bëgg a gis dëcc ñëw pour gis Sonko bu mu déggee coow li Sonko de bëgg ko gis dëcc génn oh eh, il est déportant mu ngi talo moo tax bu nga déggee ñuy yóbbu ay tàndarma est-ce gis ngeen ci dëcc Naby Vision ay yóbbu nañ dem nañ hôpital ba est que gis ngeen ci dëcc dëcc ne wure daw boobu la ko mag Sonko njëkk a woon ni yow moom génn rek moo tee duma lekk sa ndey yow yow génn rek mooy tee du ma lekk sa ndey mais fofu la commencé nak di sey gaay buñu wax waxu tandarma de ci ñewut buñu dem hôpital bi ci ñewut de ci sey légui de ci comme jamono joj damon na amerique jot na dem amerique ba euh Ousmane tunkara Ousmane tunkara ni ku bax la Ousmane tunkara recevoir ko dem euh, jour bo goudi gi yeb déggante naa Ousmane tunkara Ousmane tunkara recevoir ko ñu dem New York sem set Ousmane tunkara def def yu muy def Ousmane tunkara gungé ko nit ku bax la mom bo ñëwé di sénégalais rek da lay gunge ak no mëna mel parce que mom day gëm ni rek projet bi nga gëm. légui comme mom xamné ni Ousmane Tounkara xamna ma ma wax wax ji mu wo Ousmane Tounkara donc oui il faut que ma dégganteeg moo laa foog ñu wax ci gaaw gaaw rapidement Ousmane Tounkara dima ma enchaîner ay appel té té té té lan la non faut nga wax ak deccé moo laa foog nga wax ma ne ko du wax ak deccé Naby Vision. information bima am dégg ko xam ko bokkul ak bi nga yor duma wax ak deccé mu ne a ma ne ko waaw Déthié workat la du ma wax ak Ousmane du ma wax ak Déthié Déthié lu ñaaw ba pare expliqué ko laay bi li ma wax yëpp mu ne ma déglu naa ko ma ne ko voilà looloo tax du ma wax ak moom comme ni ko Sonko dàqee woon ca ci prison ba laa ko dàqee du ma wax ak moom ba nii waxuma ak parce que man moom buñ <laughs> buñ la geddee dama la gedd man gaw ma warkat man warkat du ma ànd ak moom loolu dama lu ma gëm la du ma ànd ku sañ a wor Sonko man xaw ma man noo may def sax boo mu mënee lekk rek may lekk loo takk du ma ci takk. dëcce dox ay dëcce def lu mu mun a dox mais malheureusement sottiwul pour mu mun wax ak man laaj la ma dëcce nu mu def fekk maa ngi koy suivre de man man bu ma dooree dóoree coup uppercut xam na la dama lay viser comme picc dóor la carabine tëll xam nga bal bi dugg na mais man dama lay topp parce que picc bi mun nga ko dóor carabine mu daw un kilomètre. daa doog a daanu man noonu laa leen di def dama lay dóor carabine ba pare topp la léegi du dëcce comme dóor naa ko carabine ci laay bi yoole wax dëcce man dama ko topp bàyyiwuma ko foofu mu dem daanu parce que dama ko dóor carabine dama koy topp ba fu mu daanoo ma for ko dem supp ko Naby Vision ma topp dëcce xam nga dëcce lu mu njëkk a def mu dem gisi sëriñu Ousmane Sonko ko <laughs> ñu ne tëll dëcce ñëw ñëw def délégation ne day seeti Serigne Ousmane Sonko ñu gé ma gis ñu woon ne seeti na Serigne Ousmane Sonko boobu mi ngi bugg lu Serigne Ousmane Sonko dox diggante moom ak ak ak Sonko pour pour jubale leen. loolu lépp mi ngi am après bu dëccee jëwee jëwee yàq deru Ousmane Sonko mu dem seeti ji sëriñu Sonko dam leen xooli vidéo ba ba mu demee seeti Serigne Sonko toog ak moom di wax dam leen seeti vidéo ba après jëw bi. ma topp ko de ma ne <laughs> am ku ma wax ma ne ko man mais gis na Serigne Ousmane Sonko ma ne ko dafa nekk di lijjanti pour ñu lijjanti mbir yi balaa moo tàkk. parce que mbiree takk na ba pare mu lijjanti mbir yi balaa moo tàkk loolu moo tax muy daw ci Serigne Ousmane Sonko mais munul sotti Déthié dem foofu noonu def lu muy def. Naby Vision. affaire bi di xaar Serigne Ousmane Sonko wax ko ne ko lijjanti naa ko finalement c'est réglé mais malheureusement Sonko ne moom pare na ci waa ji pot bu waa ji naanee sax du fa naanee léegi nag bu mu nga xamee ni dëcc dem na ba xam ni fii mënutul sotti waa ji bu màttee du bàyyi dëcc commencé nag di effacé wu ndànk di bàyyi di bàyyi di bàyyi di daw du ñëwati du waxati noonu la def ba nii ba nii ñu naan dëcc daw na Mali ñaan naan dëcc dem na nangam dëcc ba élection présidentielle yi <laughs> dëcc ñëw na waaye non dama bëgg a mais du jege boobu ba léegi gisu leen jege dëcc jege Ousmane bu dee sa gaayen la kay dugg dugg kaso génn nga seeti ko bu Sonko génnee kaso fan ngeen gis dëcc dem seeti Sonko fan foo leen ko gis fenn ba suñu doon na yàllay tey ba élection yi présidentielle yi jeex ba lépp Sonko dëcc jegewul Sonko bu koy jege mu lekk ndeyam <laughs> dëcc moo xam Sonko bu koy jege mu warax ko du ko jege ba tey ngeen ko doog ko gis nag mu dem ànd ak ñu mu àndaloon gis ngeen fa Barthélemy Diaz gis ngeen fa Khalifa Sall gis ngeen mooy ñu mu àndaloon démb di comploter. Naby Vision. Sonko jot na information yëpp dajale ko xam na ñoom ñëpp xam na leen nii Barthélemy wor ko Khalifa wor ko mu desoon dëcc dëcc wor ko am beneen parti ba ñoom it <laughs> ñoom ñoom ci ay calcul lañ nekkoon ñoom malheureusement dañoo demaale parce que ñoom dañ doon xaar ñu joxoñ leen. joxuñu leen ñu mer naan ay Sonko day tappale mi ngi tëdd mi tëdd ci lal yi hôpital mais day tappale kat la Sonko feebarul xaw ma lan ak lan <laughs> commencé diaboliser <laughs> bu ko décrédibiliser loolu lépp xew na fi nag bu ma leen di wax rek signe la ngeen xalaat ni waaw lii am na fi waaw diabolisation bi commencé day tappale feebarul nangam kii nangam <laughs> boobu yëpp moom may jox ma jox ma joxuma la non xaay ma yàq sa der kaay ma yàq sa der. Naby Vision. amoon na ay tentative de xaw ma de de meurtre bu ñu ko buggoon def daal man comprendre je comprends rien du tout si comprends rien du tout malheureusement nag vague bi vague bi yóbbu leen ñoom ñëpp ñoom ñëpp tey ñoom ñi ngi ca mboy ga gars yi dañoo tàmm politique politicienne loo nga xam ne Sonko xamee wu ko formé wu ci noonu ñi ma leen di wax yëpp. politique politicienne lañ lañ def mi ngi ci Idrissa Idrissa école bu mu politique politicienne la say intérêt lu nous say intérêt bul and ak nit te yalla tax nu mu yag yag yag le ku la lay PS la politique politicienne Bougan mom Khalifa Sall la politique politicienne Moi, ay non damay xaar deuxième tour le politique politicienne la calcul damay xaar deuxième tour ba légui mi ngi xaar deuxième tour moy politique politicien calcul té lolu Sonko xamul lolu Sonko da ngay ñew gëm ko and ak mom ci ay principe bu ko mën la dama seroon fi amul ay affaire pourcentage réew mi lañ dul joxé ci ay pourcentage lolu Sonko lolu mësa wax té ñom xamuñu lolu ñom lu xam moom mooy damay ñew nga jox ma. nabi Vision buma xexé xeexee rek may jox pourcentage lolu ku ci démé and ak Sonko da ngay xuloo ak parce que Sonko gëmul lolu gëmul nañ and nga am ci pourcentage lolu gëmul lolu gëmuko mom moom lu mu gëm mom moy boy buñu and yalla moy tax mais bu dee pourcentage mom mën nga dem luma am jël fi yalla rek a fi ne. donc ñi nga xamni tay dañu wax dañu wor ñom ñëpp école ñu génné école pourcentage la école politique politicienne Amadou Ba politique politicienne pourcentage APR ñi APR la ñu formé wa école APR politique politicienne motax dañ ne ñom dañu mën politique. Quand tu wax rek politique parce que politique pour nous, égal politique égal politique pour intérêt. politique euh, l'art de diriger euh, une cité ou bien de refaire de réformer la cité donc si concept concepts ñuy politique ñoom politique. ak nous sommes parce que intérêt la jital ñom seen rek lañu xam. motax moné Vision. gëm sa vous. dafa am gëm sa partem gëm sa mais koy bi lañu dindi gëm sa ñu ne gëm sa bop gëm sa bop koy koy bi da ko effacer mais parti bi gëm sa bop koy la tudd bi da ko effacer gëmul lu ko rokos rek ko kon parti bi gëm sa bop koy la tuddu mais koy bi dañ ko effacer parce que buñu ñëwé di def buñu ñëwé di def liste bi këyitu parti bi dañ ne leen kooy bi du ci bok koy koy bi quand même mënu ci bok mën effacer koy bi mais gëm sa bop kuy wax gëm sa bop te égalé wo koy bi def nga erreur gëm sa bop koy la tuddu gëm sa bop koy mais koy bi mënu won dugg ci liste bi mënu won di dugg ci euh boy boy laaj permis bi permis parti bi koy bi mënu ci dugg mais gëm sa bop koy la Bougane gëmul lu bopp kooyam gëm sa bopp kooy kon ku naan gëm sa bopp moom da ngaa yabaate rek gëm sa boppu kooy sa bopp kooy sa kooy bopp moo moom rek nga gëm foo ko cappale foo ko dugalee foo ko soosee fu mu tooyee gëm sa bopp kooy waa gëm sa bopp kooy nag Naby Vision jiite par ko wax càkk bordel gëm sa bopp kooy ñoom ñoom ñoom ñoom lu dul seen bopp kooy yittelu leen